sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal أرى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 mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana fas yéene àndaat ak yéen ci sunu jataay bi nga xam ne moom lañu duppee jaari jaari xaadimu rasul fi xidmatil xadim di siyaare bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom subhanahu wa yàggal ko fi lool guddal aw fanam ba mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul te mu ànd kook njabootuk sëriñ Tuubaa gépp di siyaare bu baax sëriñ Ngom Njing miinu àndal liggéey bi ba tey mbokk yi Cheikh Mouhamadul Amin Diop moom sëriñ Ahmadou Diop moom Dagana di net li ci xasidaak Irwa u min xasbi xobbil xadim ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali wàcc na ab liggéey lan moo nekkoon taxawaayu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Amin Diop moom sëriñ Ahmadou jóob nee na sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo nag ci jamonoy sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu anhu daawul def lenn lu dul topp ci moom mel ni at néew bu ñuy sang bi sëriñ Mor Anta Sali radiyallahu taala anhu làqoo itam ba am at ak tuuti ca loole mu nekkoon ñi mu àndal itam dañu doon jàng moom it muy jàngale képp waaye bari woon na lool lu mu daan yër xam-xami nit yàlla yi bëggoon lool wéet ngir jaamu yàlla tabaraka wa taala ak sori lu dul moom ak di dox ni ko nit yàlla yi daa defe di wax seeni wax ak di génne maanaa yu siiw ba mu ju yitteem kawe lool ba muy woote ndànk ci melo yu mu nekk Cheikh Mouhamadul Amin jóg nee na ba mu demee ba gën yokk la leeral la mu bëgg daal di woo ñëpp ne leen képp xam ne da nga fay ñëwoon ngir lu seetil noo def wala nga dellu fu la neex képp koo xam ne nag bëgg nga li nu bëgg nay dox ci suñu dox yin tey diglu suñuy xalaat ba mu waxee lii nag moom sëriñ bi daldi dellu ci biir Cheikh Mouhamadul Amin Diop nee na wax ji nag dafa waral ñépp jaaxle ci seeni xol di baj baj yi am ñuy dem am ñu toog am ñuy digal seeni xarit ñu dem am ñuy digal seeni xarit ñu toog sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu nag moom waxul dara dëgër lool ci li mu nekk ba mujj la ëpp ci mbooloo mi dem la niw toog ba tey mbokk yi sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu nag teel naa tàmbali taalif ci dunduk sëriñ Mbàkke Moor Anta Sali radiyallahu taala anhu daana taalif ci xam-xami diine yi wayoon na téereb umul barahin bu sànnoosiyu radiallahu taala anhu tudde ko mawaahibul xudus sëriñ moor itam radiallahu taala anhu nangu ko lool ba moom la daan jàngale bàyyi wesar wi cheikh mouhamadul amin diop moom sëriñ ahmadou diop moom dagana nee na mas na maa dégg ci sëriñ tuuba xaadala wallahu maxtaaralaho mu naan sëriñ moor radiallahu taala anhu jàngal na woy woowu ñaari doomam sëriñ Cheikh Coro te moo di as-sayyidu Muhammadul Khalifa ak sëriñ Aafiya te moo di Ahmadul Muxtaar ba tey sëriñ Tuubaa xaadal wallaahu maxtaar lahu woyoon na téereb imaamul Xasaaliyu radiyallahu taala anhu bi ñuy wax bidaayatul hidaaya tudde ko mu layyinu sudur ci atum sardadin atum junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi ginnaaw ba nag la ko gàttal tudde ko mu nawiru sudur ak si zihar ak jawharu nafis bi nga xam ne weesaru abdourahman allaxdari la ci doon woy ak yeneen bi nga xamee ne ñooñu mu àndal nag dëggu nañu ci ànd ak moom ci loolu mu wax la ñu jógee ci njàngaleem kese mi di leen yar di leen yéege ba tey cheikh mouhamadul amin diop moom sëriñ ahmadou diop moom dagana nee na lii nag man naa ne ndigal la lu bàyyeekoo ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal baraka nee na am na sax ci sunu sëriñ yi góor gu ma wax ne sëriñ Tuuba xaadal wallahu maxtaar moo ko wax ne bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal baraka moo ne ma deel yar say àndandoo ci yitte te bu yar ci njàngaleem kese ànd yi mu faral di ci ay mbindam moom sëriñ bi mel ni lii mu wax wa min ajaib ibnu abdullahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin ada ardahu bil awliya ila xiyamatin wa kulli waliya sunnatuhu wa sannaha an bidain tabsiruhu qadimahu bi fasdaai amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man wallahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbalhu min nusxa min ahli saman wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubassiran bi taxliya sëriñ tuuba xaadal wallahu maxtaaral hoo di wax ne bokk na ci kéemtaanu yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak bégal gi mu ma bégal ci fas dan te moo di fas dan bi ma tumur wa enrid anil musrikin yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak sunu borom subhanahu wa taala da ko digaloon muy woote di ko nëbbu ginnaaw ga nag mu digal ko mu biral ko maanaam loolu ci sëriñ Tuuba xaadal wallahu maxtaaralahoo moo di bi mu matee ci xam-xam yi ak xikam yi ak leeral yi ak mbóot yi ba am kàttanuk mën a yenu wilaaya gu magga mën a doon yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak ci matluk sunu borom subhanahu wa taala la ko digal muy biral tey woo mindeef yépp ngir ñuy wéeru ci moom tey topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem moo tax sëriñ Tuubaa xaadal wallaahu maxtaaralahoo di wax ni nasaa man yafalu ma yasa al ulum wa yumtaha liya bi kawni al alim siina an dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri ataani al muti bi jaahi mustafa salla alayhi bi salaamin istafa barakati alqurani wal ulumi wa qaada yumnaha ila taalimi ila tawalifi yaquudu llahu asrala la ilaha illa llahu nasa li wa laysa minni yansau wa innani bihi qimman wa mafsau salika fadlullahi yuti lesi yasaahu wa qaadali qul bi lusaa sëriñ Tuubaa qaadal wallaahu maxtaaralahoo di wax ne sunu boroom subhaanahu wa taala digal na ma ma leeral ne man Ahmadu Bamba maay wéeruwaay bi tey kaaraange ci képp ko xam ne bëgg nga aw yiw ci àdduna wala àllaaxira na ñëw wéeru ci man sunu boroom subhaanahu wa taala mii def lu ko neex rocci na barkeb xam-xam yi jox ma leen wattu naa loo xam ne nekkul ci ay téere kon bu détailleel ci liggéeyal ma sunu borom subhanahu wa taala jox na ma ci barkeb yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak barkeb alquran ak xam-xam yi def leen ci samay njàngale sunu borom subhanahu wa taala day wommet mbooti laa ilaha illallah di leen andi ci samay taalif ba tey sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaaralahu di wax ni فاز المريد لم يمل مني بما به يحوز خير مني فاز المريد قاده الله إلى تعلح بي ويحثى بي إلى فاز المريد لا سبي بما يفوق ما صانه بالله الجاري الرفيع كل مريد بيلوس يسعد وإنه من الأسى مبعد لكل من بيتعلق نجا من كدر الدنيا وفي يوم نجاه Serigne Touba qaadalu wallaahu maxtaaraluhu di wax ne bépp murit boo xam ne yokkatul ci man dana am ngën gi xiwal Serigne Touba nee na bépp murit bu yàlla tabaaraka wa taala andi ci man texe na te dana am xiwal Serigne bi nee na bépp murit bu wéeru ci man dana am lu kawe njortam ci yàlla sama borom subhanahu wa mi nga xam ne mooy sama dëkkandoo Serigne bi nee bépp murit bu wéeru ci man texe na. te dana sori lor sëriñ Tuubaa xaadal wallaahu maxtaaralahu nee na képp koo xam ne aju nga ci man mucc nga ci naxi àdduna ak bisu mucc ba kon mbokk yi fii lañuy ñu taxawandi ci seen émission jaar jaari xaadimu rasul fii xidmatil xadim ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana di leen jox dig daje ëllëg incha allah di ñaanal bu baax sama sëriñ sëriñ Abdul Ahad Mbacke ibnu sëriñ cheikh Mbacke ibnu sëriñ Moustapha Basiru ibnu sëriñ Basiru Xaadim Rasul sunu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi lool wéral aw yaramam ba mottali mbooleem li nga xam ne loolu la naa la liggéeyal sëriñ bi te ànd ko mbokki taalibe yépp noonu la ñuy siyaare bu baax sëriñ cheikh jëmu Fall xalifatu cheikh Ibrahima Fall sunu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi lool noonu nañ ko ñaanale mbooleem xalifa ay sëriñ Tuubaa yi mbooleem taalibe sëriñ Tuubaa yi waaye mbooleem jullit yépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal